ausu billahi min asheytaan rajim bisimillahi rahmaani rahim barke borom tuuba barke borom tuuba barke borom tuuba jërëjëfe sëriñ saalihu jërëjëfe sëriñ saalihu jërëjëfe sëriñ saalihu ginnaaw buñ sante yàlla julli ci géeri géer ñi di sant Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di gërëm sunu sang ba sëriñ saalihu Mbàkke di ñaanal cheikh Mouhamadul Muntaxa mu cheikh Mouhamadul Bachir yàlla na fi yàgg lool te borom yërmande ji borom teraanga ji borom jàmm ji borom xewal gi yàlla nga fi yàgg te wër sëñ Muntaxa ak a baax ak a bëri yërmande yàlla nga fi yàgg te wër sëñ Muntaxa yow de ñëpp nga yéene jàmm barke borom Tuuba yalla nga fi ak lol te wër sëñ muntaha gis nañu ñi nga xamne dañoo lakkale won jaxlé nga taxaw seen kanam lo rek doyal na taxaw seen kanam rek ñaanal leen doyal na waye nga génn téméré million manam tek ko ci seen loxo wax deug yalla mbàkke balla yalla nga fi ag te wër ya bax ak yermade yalla nga fi ag lol te wër sëñ Muntaxa ndax day boo leen ñaanaloon rek doy na waaye nga dem and ak ñom bok ak ñom metit bi wax deug yalla senegal gep amina la njukkal amina la ñaan yalla mi nga xamne moy borom jàmm yalla na yalla defal jàmm yalla mi nga xamne moy borom wër yalla na yalla defal wër seigne moutakha yalla nga fi yag lool yalla nga fi yag te wër sëñ Muntaxa jërëjëf mbacke balla ñu ñaanal seigne Babacar ci Mansour mu tedd mi momit juma ji nga xamne nal nako yalla dem ba ba ba fekk fiñ koy inigré ci malik da senegal def lu def lu def def def lu def lo xamne naka sunu waru fi am yàlla boole na ñu bax yalla ubbil nañu ay buntu aljana mag ñu tedd ñi nekk fi mag ñu bax ñi nekk fi seigne babacar si mansour yalla nga fi yag lool te war ak bax baax ñàkk ni ñi xol la ak dëkk bi ni mu bëree caaxaan ñu xol la ba tudd la ñàkk caaxaan si malik yàlla nga gudd fan lool yàlla nga fi yàgg te war sëriñ ablaay sërif ablaay caw mu baax mi ndeysaan kenn du ko dégg ci dara maam boy yàlla nga fi yàgg te war suñu baay bi ci law nañu seen suñu baay bi ci medna baay yàlla fi yàgg lool te war suñu baay bi ci ba suñu baay bi ci njaasaan yàlla fi yàgg lool te war sëriñ sëriñ muniru njëgan ak sunu wa kër maam dabay fiagulol yalla yàlla fi yàgg lool te wër sëriñ Cheikh Jëmb Fall yalla fi yàgg lool te wër ak sunu wa kër maam Alpha Chomban ak sunu wa kër maam rawan gom chapal yalla fi yàgg lool te wër ak sunu wa kër maam Cheikh Omar yu Tal ak sunu sangu yu bax yi nekk ci Louga sunu wa kër maam Abba sali yalla fi yag te wër senegal day amna lu gën or amna lu gën wurus amna lu gën jama muy sunu maam sunu mag yu tedd yi walay bu ñu toppoon li wax mon bon doko fi gis walay bu leen doon deglu mon bon doko fi gis ñom nak ñoy lamp rew mi ñoy kenn rew mi ñi ñaanal ñep ñep lañ ñaanal ba ci suñu mbokk catholique yi ñi ci église bi ñep lañ ñaanal yalla fi yalla def jamm di wax assalamu alaykum mbokk aduna bepp rawati na wa senegal di ñaan suñu ñoo bi yalla na fekk yeen ñep ngeen nek ci jamm képp ku nek ci xat-xat yalla na ko yalla yàlla na la yalla teggal xat-xat yoy képp ku nek ci xat-xat yalla na ko yàlla teggil yalla sambu ñu sambu suñu njaboot yalla bu ñu yàq yalla bu ñu yàqule mboolem ku yewo senegal rek ñu ngi la ko ñu ngi lay ñaanal ñaan gogu di nuyu nak soxna su tedd ci <laughs> ala koku mom damay naan leewal ba pare ak am bax soxna Aïda Saliou Thiour embouteillage bi nga indi ci aéroport bi day la ilaha illallah muhammad rasulullah kenn du Serigne salewu lepp Serigne salewu la kenn du wallaay gars yi dañoo xamul liggéeyu Serigne Saliou sëriñ Saliou nii mu def Serigne beejo Serigne Béthio jël soxla su tedd si def ko nii mu ko def ah gars yi na nangu teel a nangu day woyofal ay duma na nangu lépp liggéeyu Serigne Saliou la wàcc aéroport rek mu mel ni maanaam kenn mun te xam lii lu mu doon ay soxla su tedd si yàlla nga dund soxna Aida Saliou Thioune yaa ku la ko yéene. yàlla nga dund bi laa yaa baax man de yàlla dimbali na ma barke borom Touba yàlla damaa teel a dimbali maa gis lu baax man ma ma ma ngoy ci gis lu baax rek ngoy ci yàlla damaa dimbali mënoon naa bokk ci ñiy contre mënoon naa bokk ci ñi la xamul mënoon naa bokk ci ñi nga xam ne maanaam coalition xeex ku bon ku baax. coalition xeex ku baax mënoon naa caa bokk waaye yàlla dimbale ma rek teel a ubbi samay bët ma xam ci yow as tuut mu nekk lépp lu baax barke Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Sow soxna Aida Diallo yàlla nga dund yaa képp koo àndal yàlla nga dund nii nga bëgg a liggéey la Serigne Touba yàlla nga ko liggéey ci nim la soobe yàlla nga ko liggéey mu tombeek ngërëmal Serigne Bamba ay eh, mbokk yi nañ ànd ak moom nañ ko jàppale nañ ko dimbali lu baax rek lay def ndeysaan boo waxee ñu naan farfarloo boo waxee ñu teg beneen baat barke cheikh ahmadou bamba lu baax rek lay doxe fu baax rek lay teg tànkam ngërëmal sëriñ tuba rek la bëgg waaw góoru sëriñ tuba rek la bëgg lépp lu mu am lépp lu mu am yéene na ko sëriñ bamba moom soxna soxna soxna ayda saliw cuun yalla nga dund soxna ci yaa baax barki Cheikh Ahmadou Bamba ku gis embouteillage bi nga indi ci ci aéroport bi ñu xamné manam maanaam xamné seen yoon neeku ci di yoxu di taccu manam di bigé ndax soxna ci bo jàkkaarloog moom boo gisul nak wala nga koy seen ci internet bi mën nga ko tek dara way bu ngeen jakkalo nga xamné ku tedd ngi ni billahi barke borom Touba soxna Aida ya tedd ya bax yalla nga dund gars dañu xamul rek te yow lo kenn ak yow baal nga ñëpp sa xol bi dafa weex tàll barki Serigne Touba yow dan laa préparé dan laa defar dan laa préparé laa defar lu ñu préparé ak lu ñu préparé wul bokkul barki borom Touba maafe bu nu préparé ne dimanche ba la di ñëw maafe laay togg tey la dimanche nga ne dimanche ba ñëw maafe lay togg bokk la ki xëy suba tey ku xëy dimanche si suba ne maafe lay togg du bokk déedéet du bokk ndax yaa baax yaa tedd baal nga ñëpp. xam naa ne sa xol bii moo raw perkaal yéenewoo kenn dara lu dul lu baax bëgg sëriñ tuuba rek moo la yóbbee lii waaye nag nit ñaa ngi nangu gaa ngi nangu maanaam ñi réeroon yàlla gindi na leen barke bamba ñu ne ñi la bëgg a bari yàlla nga dund yàlla nga gudd fan solo si tedd si bilaay yaa baax yaa baax maa ngi ñaan yàlla nga dund téeméeri at lu teg ndax yow sa dund njariñ la yaa ngi liggéeyal sëriñ bamba ñi xamul rek ay wax waaye nag na leer na ma ne jéggal nga ñëpp ndax sa bi moo raw perkaal man de yàlla dimbale na ba ma teelee nangu mënu naa bokk ci ñiy xaste wala ñiy saaga wala ñiy wax naka sudul noonu jëlee fa ay bàkkaar waaye ay yiw rek laa fi jëlee ki tuyaaba barke sëriñ tuba ku la sopp sopp naa ko cheikh amadou bamba li ma sama xol bi laa ko teg tibbi billaay soxna su tedd si yaa baax fo maanaam maanaam lii lépp nag liggéeyu Serigne Saliou la la Serigne Saliou waxoon sëriñ Béthio ne ko dinaa weexal sa bët bi bu mu weex tàll moom moo ñëw tey Serigne Béthio kañ la dem tey la gi gën a neex tey la jëf ji gën a bari tey la ngëm gi gën a bari tey la bende yi gën a neex teele nag yi gën a bari ndax borom maanaam ab wàlliwu yàlla su demee ginnaaw mooy dàq kanamam barki Serigne Touba sëriñ Béthio ku yaakaaroon ne bu demee yoonam bi dina fay am na ñu doon wax sëriñ Béthio yoonam bi tàkk-tàkk mboob la waaye tàkk-tàkk mboob du ab du mel ni xal du am xal du am xal de waaye ku ne xam ne ne soxna Aïda Diallo mii bañ bañ bañ bañ bañ bañ bëgg ku ne xam ne ne yàlla may na ko. ku ne xam ne sëriñ Béthio defal na ko ku ne xam ne li nga xam ne Serigne Saliou defoon na ko sëriñ Béthio sëriñ Béthio jox na ko soxna su tedd si soxna Aïda Saliou Thioune bilaa yaa baax yàlla nga dund yàlla nga dund yàlla nga dund soxna Aïda Diallo yaa tedd bilaa yaa baax ñëpp ñu ngi lay xam si gaa ngi lay xam si de barki Serigne Touba tey jaan murit xaadir laay ñëpp la bëgg amul ku la noonoo li sëriñ Modou Kara mu tedd mi waxoon ni ko soxna si bul defee ne kenn dalaa bañ ñëpp la bëgg. dal laa xamul rek dal laa xamul kon nag yàlla nga dund tey nag suñu émission dañuy ñëw ci politiciens yi man dañ maa jaaxal man politicien Sénégal dañ maa jaaxal nuñ ma jaaxale da ngay gis ñoo xam ne dañoo faroon ak Macky Sall jox leen benn post président Macky Sall jox leen benn post ñu koy xalamal lu mu wax ñu ne waaw soo waxee Macky Sall dara ñu génn ci télé yi génn ci internet bi daal sa kaw léegi nag ñu wëlbatiku Macky Sall dàq leen léegi nag ñooy doon noonu ñooy nekk noonu Macky Sall nag léegi bu leen dàqee xam lu ñuy def dañuy dem seeti noonu Macky Sall ñu ànd ak moom Moustapha Diakhaté mi nga xam ne fu nekk taxaw na fa défendre Macky Sall Moustapha Diakhaté mi nekkoon président groupe parlementaire bu bu APR fu nekk taxaw na fa tàgg Macky Sall fu nekk taxaw na fa wax ci lu baax Macky sàll wa ñu tegg ko fa génn ko ci lycée bi léegi mooy première noonu Macky Sall Moustapha Diakhaté yow biñ lay fal am na ñoo xam ne ñi ngi fi woon faluñu leen te ñoo la xam-xam dàq laa jàng ñu bàyyi leen fi yow fal la nga jiite groupe par parlementaire ñu jox la maanaam ay oto jox la xaalis ngay gundaandaar waaw soo wàccee sa morom yéeg kala faloon bu ko xeex lagi and ak Macky Sall manam bo and ak Macky Sall deli la manam nit ku bon nga bo àndut ak Macky Sall nit ku bax nga ñu wëlbatiku Moustapha tumu euh, tedi Moustapha Diakhaté léegi fo tok deru Macky Sall du fa rafet foo deru Macky Sall du rafet du rafet te dawati jek der manam di sang Macky deru Macky Sall bu muy rafet kon yéen poste moo leen ñor Sénégal ñoru leen billaay yéen a soof yéen politiciens yi yéen a soof kon yéen Sénégal ñoru leen koo defal fal mu ànd ak Macky Sall di ko tàgg buñ ko wàccee mu commencé xas Macky Sall waaye lu ngeen bëgg maître Moussa Diop nekkoon Dakar dem dikk moo fi waxoon wax juréy ja moo naroon daj wut ay caterpillar daj ila Touba bi yóbbu ko ilaa mu dem Fuuta da ko fàtte moo ne woon su xëyee suba dafa am day am envie maanaam day am euh, loo xam ne du ko bëgg muy jël ay caterpillar lelli Ila Touba bi yóbbu ko Fuuta dañ ko fàtte di xalabal Macky Sall ndax bëgg lu neex Macky Sall tey jii fu mu toog deru Macky du fa rafet fu mu toog Macky Sall du fa rafet wa maître Moussa Diop ba ngay nek Dakar dem dik nek directeur du Gunda Ndar am na ñoo ñi ngi fi won amuñu liggéey amna ño ñoo ñi ngi fi won ñoo ñoo la ëpp xam-xam ñoo la dàq jàng tey xoolal ah léegi daal ku and ak Macky Sall manam nit ku nit ku bon ka ku genn dox sa ci yëfi bopp nit ku genn ku ñu dàq rek nit ku bax nga ah loolu nga def ne loolu rafet na maître Moussa Diop Barthélemy Dias neewoon na fii da ngaa sàcc xaalisu Dakar dem dikk da ngaa jaay terrain boobu terrain boo xam ne état bee ko moom jiñ la fi escroquerie jiñ la fi maanaam sàcc jiñ la fi lu ne nga dem porte ko plainte nga dem porte plainte Barthélemy Barthélemy Dias Ousmane Sonko ñëw jubale leen nga dem rocc sa plainte ne ko baal naa kon kon li mu li maanaam ñaara mën a nekk Barthélemy Dias li mu wax du dëgg wala wala li mu wax dëgg la. même boo koy baal na ko tribunal leeral ndax loolu alalu sénégal la alu sénégal la ousmane sonko barki démb moog bugaan gay ñu taxaw fi di di xastante ousmane sonko bugaan gay taxaw fi di xastante ku ci nekk di yekk sa morom lu mel ni xeme amee nit ñii kay ñu juboo ndax lan moo tax ñu juboo idrissa sek jóge na fi jóge na ci Manam ci opposant yi dem ci Macky Sall te da ngeen daan taxaw fii naan Idrissa Seck na génn wax na génn wax dafa mel ni Sénégal ñoru ko maanaam élection ba élection dong lay génn Idrissa Seck nag génn jëf ngeen ne la ngeen ne la ngeen dafa wor ngeen dafa amul xaalis yéen a ngi koy seetal di waaye Idrissa Seck neewul foon fii dafa sàcc ay milliards yu bare bare bare bare bare ci chantier de Thiès waxuñu ko woon fii ay milliards yu bari bari waaw ngeen wëlbatiku nag ni dafa ñàkk moo tax mu dugg ci gouvernement bi barki sëñ tuba mbàkke yéen yéen a ñu war yéen yéen a soof yéen politiciens yi billaay yéen a soof te mën a fen lakkal ngeen nit ñi sonal ngeen nit ñi yéen politiciens yi kuy bëgg a falu daal dina fen a fen a fen a fen a fen ba falu bu faloo nag mel du woon moom ne ngeen dafa sàccoon xaalis bu bari ci sàccee di xaalis boobu na fu nga ko dugal kon loolu da ko mën a lekk ba mu jeex ay milliards da nga ko mën a lekk ba mu jeex li ngeen wax ne sàcc na ko ci ay milliards da ko mën a lekk ba mu jeex ci loo xam ne motul fukki at ak juróom ah da ko fu mu def fu mu dugal xaalis ba xanaa da ko doon taal ngeen ne nag léegi dafa amatul dara moo tax mu dugg ci biir gouvernement bi dañuy takkal nit ba pare setal ko nee ngeen na génn na wax na génn na wax walbatiku nag moom mu génn jëf pourtant day yéen ñëpp seeni xam-xam li ngeen yor ci xam-xam bu ngeen ñëwoon ànd ak Macky Sall yéen ñëpp ku nekk bu doon Sénégal moo leen ñor ku nekk day génn indi li nekk ci boppam indi li nekk ci xelam ngeen teg ko ci Sénégal gii Sénégal avancé ndax soxla nañ loolu bu demee nag ba élection di jub si yéen ñëpp ku nekk dem wuti loolu moo gënoon li ngeen def nii mais koo fal nga dégg ko mu naan so son excellence di ko di tagg maanaam président Macky Sall koo wàcce rek koo wàcce rek mu dem nekk noonu Macky Sall pourtant bi lay fal dañoo bàyyi sa morom fii ku la gën ku la dàq jàng dañ koo bàyyi ndax ñëpp mun ñoo soof ngeen de lay yéen a soof yéen a amee nit ñi ak waaye yi xam naa lay lii problème bi mooy dañoo defe ne du ñu dee politiciens yi moom dañoo defe ne moom seen dund à vie la te xooluñu politiciens yi jiitu ponkal yi nga xam ne jiitu nañu àllaaxira ñooñu bëgg a dem taxul ñu dem yàkkamti taxul ñu dem bëgg a dem alaxira taxul ñu dem yàkkamti dem alaxira taxul ñu dem seen seen bis dafa mat ñu dem ñu yore ay ndomba tànk yu rëy nee naa la ku suul sengoor suul politicien bu mag ku suul Djibo Ka ku suul Iba Der ku suul Ousmane Tanor Dieng ku suul Amath Dansokho yaakaar nga xam nga ne dina la suul kan moo leen gën doon politicien bu mag ñu mag kan moo leen gën a doon ay politiciens am tey jii boo leen indiwaatoon fii ci biir suuf lan lañu gën a soxla lan la ñuy defar lan la lan la ñuy bëgg gën a yittewoo muy jaamu yàlla waaye koo ci indiwaatoon fii ci suuf du wax waxi politique ci indiwaatoon fii ci biir suuf dootul wax waxi politique jaamu yàlla rek la fi nekk ba ba ba ba dem yéen nag defe ngeen du ngeen dem bu benn politicien dee. manam bahla ku bahla ngeen tak seen wéru ñuul nafiq tak seen wéru ñuul yi nak taxaw ci morgu ba levé di corps ba waaw ki am d'état la ki nangam ki nangam ki na di ko lu bax mais kuy dund séré lo ko lu bax bu dé lo ko séré lu bax tey jii boo mu ma boo Ousmane Sonko micro ci Macky président Macky Sall mi du wax moko lu bax ci mom da wax na la président Macky Sall def na fi lu bax def na fi lu bon def na fi lu bax def na fi lu bon Abdoulaye Wade def na fi lu baax def na fi lu bon Abdou def na fi lu baax def na fi lu bon Senghor def na fi lu baax def na euh, def na fi lu bon bu li kuñ ci dékkoon micro tey jii ne ko loo xam ci Macky Sall lu bon lay teg te mara de mara de mara day taali bu dëj amoon léegi lu baax rek la ñuy wax ñoo daal booy dund baaxoo mais boo dee baax na. Ah, diw am détat la woon maa ngi ko bi nekk université wala bi ñu dajee ci nangam nangam seede yoo xam ne ay feni kese la ñoom mais leen ñu jàmm billaay yéen ñu sonal yeen politiciens Macky Sall dal ko and ak mom baxul lol ngeen wax ku nekk ci opposant opposant opposition bi mo bax te ku ñu rocc duggal ci gouvernement bi jël sa waxi daw ak sa waxi ren tek mu wuté il faut na nga jëm ko liggéeyantee ak jubbanti lol tegu leen ko fenn dé leen wax ci nit ñi lu bax li ñi def Bougane Gueye mënoo xuloog Ousmane Sonko ku nekk di gaara gaarawaale sa moom di sànni sa morom xeer léegi nga wëlbatu ko dem ànd ak moom. Barthélemy Dias maître Moussa dem ci yoon nee nga da laa sosal nee nga da laa waxal naka su dul noonu nga wëlbatiku dem porter plainte Ousmane Sonko yow yaa ne woon anti système xaw nga doon wax nii. pour la léegi ngay dugg ci ñi nga xam ne système bi lañ bokkoon nga ànd ak ñi nga xam ne ci système bi lañu bokkoon yow nee nga nga. waa léegi pour lan ngay wëlbatiku di ànd ak maître Moussa Diop maître Moussa Diop ci système bi la bokkoon bañ ko fiy jiiñ escroquerie Barthélémy Dias moo ko jiiñ léegi sa kër mooy tribunal bi foofu nga leen di jubale mais lii tribunal da ko waroon leeral tribunal da ko waroon a leeral ndax dañ laa jiiñ sàcc waxal la lu bon lu nekk da waroon bàyyi ba ñu leeral ko ba pare nag ba nga gañee ba nga xam ne yow bi ñu seetal sa der bi nga door a wax nag baal naa ko mais leen ñu jàmm ak Sëriñ Tuubaa yéen a soof yéen man bëgguma sax di wax ci yéen politiciens yi bëgguma sax di wax ci ñoom gis nga nit ñi xoolee ni ngeen di wooteel koo na koo dégg mu naan réew moo ma ñor waxul dëgg day fenn réew mi ñor leen de seen poche rek moo leen ñor koo ci gis boo koy fal day jeex tàkk wow koŋ ñuul kukk waaye koo ci fal ñetti weer koo ci fal ñetti weer mu ne faaj ndax riba gi ñuy lekk balaa yi ñuy lekk musiba yi ñuy lekk ak ñaqu jaambur yi maanaam rongoon yi jaambur yi baadoole yi ñuy siime seen i cere lijjanti wuñu kenn seen bopp rek la ñuy lijjanti am nañu kër ñoom ñëpp am nañuy kër bitum réew seen compte bancaire yaa ngi ni fees dell ni ñaa ngi fi lekk añu ñu reeruñu ndékkuwuñu xool leen ñi ngeen di wooteel bala ma bëgg a dee élection jot ñu sol ay tiset ay ponkali góor yoo xam ne amuñu xëy amuñu gont sol ay tiset di langar langar ci naaj bu tàng bi wala ñu wëlbatiku naan dañuy nekk sécurité ñaata lañ rey ci élection 2012 ñaata seeni jabar persuñu seeni yaay persuñu seeni doom persuñu ku leen fi woo marche bañ leen ku leen fi woo marche bañ leen bu leen taali pono bu leen toju oto toog leen si yor seen carte électeur xool na ki leen doy Sénégal du ñu fal nit ci programme yaa ma neex la Tukulóor la moom laay fal séeréer la moom laay fal Cees waa la moom laay fal Louga la dëkk moom lay fal loolu la ñuy fale nit te kenn du fale nit loolu nañuy fale nit ñi par programme di fale nit ñi par compétence te bàyyi xiiru gëg ŋaayoo gi ku leen ci sànni lu tàkkaloo pour na bañ leen xolal de election yi passé ba léegi boobu léegi ñu ci campagne électorale Sénégal duñu ñu jóg ci campagne électorale chaque jour campagne électorale loo xam ne Macky Sall war na fee defaat ñeenti at commencé nañ campagne bi ba ñu wootee ba ca dimanche ba ca suba ga altine ga lañ commencé campagne bi fan la ñuy dem moo tax duñu pousse duñu passe loolu ma doon waxtaan man bëgguma sax di wax ci politiciens yi ndax soof nañ trop lakal nit ñi mën a fen ku ci dàq fen sang morom nga ne kii soo waxee li tey bu suba ak ñu tegaat ko nga wax leen nga xuloo kii tey maanaam nekk ci état bi ñu fal la ngay gundaandaat ñu dàq la nga dem nokki noonu noonu Macky Sall yaa moom réew mi xanaa yow dong yaa fi nekk yow dong yaa fi nekk te say morom a ngi fi yii hmm? moom golo wàccal sa morom yëg la rek may leen ñu jàmm allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman barke borom Touba barke borom Touba jaaraama Serigne Saliou Mbacké jërë ngeen jëf